Aha. ahlan bikum kan moo nara nekk plan B bu Pastef ngir wuutu Ousmane Sonko allah bés bi yéene kaay ne Biram Souley Diop wala Bassirou Diomaye fay wala gii mari Sagna fi mu toll nii gaañaa ngi koy waxtaan ak akaru mandat enquête yéene kaay dëggal xibaar bi na 2024 ki nara wuutu Ousmane Sonko mbaa du guerre fa nara xam diggante ay lieu naam yaw fa ngay xool Biram Souley Diop Guy Marius Sagna Bassirou Diomaye fay kan moo ci nar a porté projet Pastef bi 2024 ngir laaj réew mi Walfadjri yéene kaay ne man faa leen di wax candidat 2024 kan moo nar a nekk favori ca biir Pastef l'observateur ne man faa seetlu ne plan B maanaam koo xam ne moo nar a ñëw wuutu Ousmane Sonko du yomb de yaw fa ngay xool li des fii ak watey bëreetu te man sax faay ragal tasaaroo xiiroo ŋaayoo am ca seen biir ñoom waa Pastef ba woon a ñoom fa ñoo waxoon ne far force fra force doole A ni B bu bëgg am plan les ko yéen a kaay mel ni ko naan leen su yóboo ñu wut plan waa Pastef ndax nguurug Sénégal gii fak langaamu kotomu ci ñaari ngàndaay yi nga xam ne moom la fas yéene xeex ak Sonko ba ca njëkk mooy fexe ba du mën a bokk ci ay wote ñu langaamu jaaree ko ca contimence ba ñaareel bi tamit mooy fexe ba bàyyi Ousmane Sonko mu des ci kaso gi te mooy yéen a kaay na leen hëy faa leen di wax lu leer nañ yéen ñi nekk fii naan Pastef fa ñoo xam plan coalition boo xam ne fañ ko tuddee coalition Sonko coalition boobu nag mooy bokk ci wote yi kan mooy nar a nekk seen mbër nag tànnaguñ ko mbërëm Benno Bokk Yaakaar ba tey njiitiram Macky Sall tànnagut ko waaye turbine yéen a kaay fa xëy duñu xamal na njiitiram Macky Sall bés bu tànnee seen candidat su boobaa APR fii lay doxee nag tas ah, yaaw fa ngay xool fa xam ñoo xam ne fa ñoo wax ne bu ñu leen jiitalut fa ñuy wengal gaal gi de jaxa sa carte gi wot sanction tamit fa nar a am ca waa APR Mouhamadou Moustapha Diagne na leen hëy faa leen xamal leen gis ngeen Boun Abdallah Dionne mooy candidat bu gën a wóor Bokk Yaakaar fa ngay moo fi jiite élection député yi gañe ko te moom moo fi nekk premier ministre falaat njiit réew Macky Sall premier tour lii yéen kaay moo ñu ko xamal regard yéen kaay ne benn bokk yaakaar daal ba léegi ñoom xamaguñ candidat parti bi ëpp doole tamit ci kujje gi muy Pastef fi toll ni fañ koo tas seen njiit la Ousmane Sonko ma nga ca kaso ga ay militant am toll nii ña nga ca ak jaaxle Karim Wade tamit bokkam ci wote yi fañ koy laam-laamee Khalifa Sall nag su fekkee du bokk ci wote yi kenn tegul ko ko lu may bàyyam Ablaye Wade ah, yaaw fa ngay xool te mooy yéen a kaay fa ñoo xamal ne Ablaye Wade bi mu nekkee njiit réew bu Sénégal ca juróom-ñaari fan ca weeru sanwiye wa fa dugaloon ci constitution bu Sénégal ne képp koo xam ne nekkoo sénégalais 100 pour cent maanaam nga am nationalité benn rek di Sénégal ko amul loolu mënoo nekk président léegi nag doomam ji fa am ñaari nationalité bu Sénégal ndax baayam sénégalais la Ablaye Wade ak bu France ndax tubaab la Ali Naar Ndiaye ne hëy faa seen bopp Karim Wade dara mënut koo tere ngir mu delloo nationalité bu France su boobaa nag dana mën a bokk 2024 la laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne Maimouna Dièye maire bu Patte d'Oie bokk ci farandooru Ousmane Sonko yi bàyyi nañ ko mu génn kaso ginnaaw buñ ko tëjee yor yor yéene kaay na fa feebar nag moo tax ñu bàyyi ko Vox Populi na ko bàyyi ba sax de fa ànd ak contrôle ba pare fañ koo opéré ndax fa feebar lool ca kaso ga keneen ku feebar lool ca kaso ga ndax fa loof néew doole sonn mooy Ousmane Sonko te grève de la faim ba ko ko yóbbee Assane Seck bokk ci gi xeex àq ak yelleefu man daal faa jaaxle lu tax kilifa yi état bi ñoom ñëpp fa kenn waxu dara ci Ousmane Sonko ma nga xam ne nga ca diggante dund ak dee ndax xiifal gam nekkee ma ko waxee ca Vox Populi ba tey yéen kaay bi ne farandooru Sonko yi nag fi mu nii ñoom seen manifestation yi xam nga fu ko tegam stade yi ñuy footballee nawetaan ca tribune ya fa la nekk di woy turu Ousmane Sonko libération ne mbiru Juan Branco ya Jamil Sané gars yi inculpé ko de usine doole moom ma ca kaso ga source ay yéen a kaay na ko jeexagut faala ci yokkal ña nga ca kaso ga ni ki démb Sénégal muy téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñu demoon Barça mbaa Barsaq ci ndox mi fañ leen a jàpp delloo si leen seen réew juróomi fan yoo xam ne def nañ ko nag ci ndoxam Mauritanie mi géej ga tey la ñu yegg si Dakar le a kaay ñu ko xamal si du quotidien moom fëqee xamal jàngat ci gouvernance économique bu réewum Sénégal ak plan Sénégal émergent pexe yi ñu nasoon ñu bëgg seeni téléphone dox bu baax ku leen xoo jot leen ñu bën a ñàkk réseau ci màggal ak Touba gi mooy askan wi ak taalibe yi indépendant yéen a kaay ne waa ARTP dalal nañ xelu askan wi na ren réseau du manqué l'évidence yéen a kaay ko na Abdou Karim Sall dalal na xelu xalifa ci jafe-jafe réseau ren doo xam Touba ci màggal gi leer nen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne banque yi ci Sénégal faama ay mbir yu garaaw yu doy waar yoo xam ne fay xam ci yenn banque yi yow fa ngay xool borom banque yi daal fa ñuy jël ab xale bu jigéen bu rafet mel nu ko neex jiital ko ci banque yi ñu nekk chef d'agence wala gestionnaire su ko defee fañ leen di màkkaroo ak clients yi nga xam ne fa ñoo xam xaalis yow fa ngay xool fa ñuy bàyyi ba clients yi toog ñu jël ndaw su rafet sa na ko jógal nga daagu dox ñu xool xool la gis la benn soxna nee na man kilifa gi jiite banque bi ginnaaw bu ma jëlee may liggéey fa ma doon macro baara yógoo maanaam fa ma doon may far borom xaalis boo xam ne client la ci banque bi ndax man faa rafet te sama forme bi fa jekk fa rafet léegi waaja commencé tamit di ma bëgg a ma bañ borom banque ba ci la mu mujj dàqee <laughs> waa ma ne waaw góor bañal de soo nangu woon fañ lay fooyee bés bu client ba génnee ca banque ba borom banque ba dàq la su ko defee fa ngay perte di la sec ba pare hay xenu la sa taar boobu daal ak jekkaay boobu boole kook ful ak fayda faxe cee xut borom kër moytu ñi lay fooye